<laughs> da ngay seetloo noonu rek Aliou Sow xam naa dañ koy bàyyi mu naan ndox daal di calmé waat tuuti ñu ànd ak Salma Ibrahima fa Salma people tey lan lan nga ñu fas yéenee indil. ñu voilà dinañu def comme ni ñu koy defee d'habitude la revue des actualités people les plus marquantes. Mhm. mais nag euh, dinañ ko tàmbali ak coow bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fële nga xamante ni moo di ca Yoff mhm. euh, nga xamante ne rek dañoo gis euh, ñi benn dafa am benn waaye takk der mu nekk foofu le moom c'est un policier dénommé. Euh, Saliou Diène moom nag dañoo gis ne dafa jël arme moom arme de service bi nga xamante ne moom lay liggéeyee mhm. di menacer waa këram euh, waaye juróom bu jigéen ak frères et sœurs yi nga xamante ne ñoo dëkkee foofulee mhm. li ko waral rek du leneen lu dul ab coowal ndono euh, bu ñu nemmeeku foofulee parce que ñoom ba seen waay jur bu góor génnee àdduna daf leen bàyyee benn kër donc nag ñoom ñuy xëccoo kër googulee par la suite comme ñoom ñëpp ñoo bokk ñu ne léegi nañ ko mbiiraas départ départagé yëf yi mhm. ku ci nekk nag ba nga jëlee sa part ba noppi moom mu ne du demee noonu jël ay responsable moom euh, dem porté ji plainte yóbbu mbir mi fële nga xamante ni moo di ca Descos Descos nag daal di ñëw euh, nekkoon na arrêté travaux yi parce que moom moomul foofu déjà mhm. affaire bi euh, kii la woon benn héritage boo xamante ni seen papa moo leen ko bàyyi doon par la suite bañ ko séddoowee ku ci nekk am nga sa part donc na respecté partie bi nga xamante ne moom moom la moom mhm. mais nag policier bi di Saliou Diène moom nee na du ci dal mhm. dem na sax bay jël comme ni ma ko waxee léegi li nga xamante ne moo di arme de service am di menacer frère am yooyu ak wajuram bu jigéen boobule loolu nag yóbbu benn frère am bi mhm. daal di dem ci euh, presse bi di nga xamante ne moo di Pikini Production ngir nag dénoncer du nu mel waaye it avertir ñi nga xamante ne ñoo di autorités yi nekk ci ci réew mi naataan rek euh, mbir mi di ëpp doole il a bien fait d'avertir waaye tamit moom de tenue boobu boobu aussi ñi nga xamante ne mooy waa service am fa muy liggéeyee mhm. waxtaan ko jox mhm. di ko utiliser pour leneen di si menacer euh, ay waa këram wala ay yeneen yeneen doomu aadama je pense que mhm. waa service war nañ ko waxtaan ak moom même s'il le faut sax ñu ñu retirer euh, li nga xamante mooy arme boobu noonu mu yor mm, effectivement parce que man gis naa ni lu ni mel buñ ko bàyyee dina yóbbu beneen niveau jiyo yi nga xamante ne ñu ngi te te te frère bi aussi man maa ngi doon suivre vidéo bi ci mhm. Pikini production frère am bi mu ngi doon wax que ni moom moom policier bi ci mhm. boppam il n'est pas lucide dafay mandi xam nga yooyu noonu si lay si yooyu lay profité ñëw di leen di leen di leen di leen menacé yooyu tamit xam nga policier mhm. ngay ngay di xam nga tamit loolu àndul ko te frère am ci boppam moo ko wax c'est que c'est que seen liggéey dafa yéex. parce que lii dañu gaaw a intervenir. dégg nga euh, balaa muy indi jéeya. dégg nga lii am na mais c'est dëgg-dëgg yow euh, kër goo xam ne yow moomoo ko yéen a ko bokk lenn lenn mu am mooy dangeen ngeen koy héritage day am bu ñu defee kii bu baax ku nekk jël paaram mhm. dem. je euh, pense que c'est l'occasion nga xamante ne ñoo di homme de yi seen ñu leen di jox pour lan la. mais waruñu ko jël rek di ci régler ay compte mooy euh, frère am bi euh, fu mu dem muy euh, muy gendarmerie foire mhm. police parcelle fu mu mënti dem di fa yóbbu cas bi ñu ne ñoom ils ne sont pas compétents pour pour régler pour régler cas boobu xam nga tamit mhm. loolu beneen beneen beneen mhm. problème ñoom bu ñu compétent woon pour régler cas bi kan mooy compétent keneen pour régler ko c'est un problème en tout voilà donc euh, bu ko defee rek ñu daal di jàll ci site bi di Leral TV Leral TV it dikkaat ci beneen kaa euh, ñu nemmeeku nag fële nga xamante ne moo di ca dali foofu foogaay du leneen rek lu dul ni ñoom dañoo rek daal di nemmeeku ni dafa am benn bassin bu nekk foofu lee jamono ji yëpp nag dañoo gisoon ni euh, bassin bi dafa mel ni luy tàkk mais nag leneen waralu ko lu dul rek travaux train express régional bi nga xamante ne rek day romb foofu lee parce que euh, dañoo gis ni maire bi nekkee foofu sa Diallo moom day ñaawlu doxalin bi nga xamante ni rek ñi yor travaux yi yor nañ ko parce que il se dit que euh, ki nga xamante ni moo chargé woon ngir lijjanti lépp lu jëm ci hydrocarbure ci ci ci terre bi ba mu ñëwee ba foofu lee ca Dalifort dafa mel ni rek dañoo bàyyi essence bi nga xamante ni moo nekkoon foofu noonu di couler ci bassin bi nekk foofu ca Dalifort ba ku romb sax yor sa cigarette di wala nga taal euh, allumette sànni affaire bi dafa mel ni day tàkk mu mel ni nag ñi dëkkee dëkkee foofulee ñu ngi koy ñaawlu te it di woo ñi nga xamante ni ñoo di des autorités compétentes ndax ñu daal di jël nag ay matukaay ci lu ni mel. TER bi TER bi mm. TER bi dina fi indi toj-toj. Mm. dina fi euh, TER bi li mu nar a def ci def benn amul fi benn njëriñ. Mm-hmm. yàq xaalisu euh, askan wi. Mm-hmm. dégg nga léegi nag waxuma loolu TER bi fu mu jaar rek. gaa yëpp waaw ñëpp a nga à TER. Mm-hmm. terre bi ci boppam. Mm-hmm. moo bon daf ñoo yóbbu à terre c'est vrai hein. parce que yóbbu na à terre waaw fépp nag fu mu jaar xoolam fi mu jaar yëpp ay problème la. Mm-hmm. mais incompétence bi moom lii moom dafa yaakaar naa dafa ëpp de là à bàyyi essence bi di couler ci benn bassin boo xamante ne lii mën na jur leneen. Euh, baax na nañu toog noonu di xoolee rek. Mm-hmm. Hmm. effectivement. ñu jàll ci Dakar Buzz TV Dakar Buzz TV nag euh, di xamle ni. Euh, ki nga xamante ni moo di crècheur bi di tey soosee moom nag daal dinay nag libre gannaaw nag ba ñu gisee nii waa Sen TV ci seen émission bu ñu woowee les grands cœurs te oustaz Iran Ndaw doon ko nag euh, organisé daal dinañuy nag arrivé à collecter 100 millions de francs CFA yi nga xamante ne waroon na koo fay comme euh, ni comme kii bi ñu tegoon ci ndoddam mu mel ni nag libre na waaye nag Dakar Buzz TV di xam ne ni lenn rek la ñu liir ci kanam moom mooy il était ému parce que gis na taxawaay bi nga xamante ni sénégalais yi taxawu nañ ko euh, ak mais nag daal di nañuy nemmeeku ni bu ñu xoolee kanamam it mën nañoo gis ni dafa sonn loolu euh, ki nga xamante ne nag moo di Iran Ndaw moom it daal di na ci nag porox ndoolu ngir remercier télévision sénégalaise yi nga xamante ne ñoo nekk sur place parce que xam ne na ni ñoom ñoo véhiculer message yu téléthon bi ñu doon def te nag euh, ñu ngi leen ciy remercier bu baax a baax xam ne na it ni lu ni mel su amul woon xëy na euh, Taïb Socé du moom ci boppam du xam li nga xam. man euh, ci affaire bien ah, li ma gën a yéeme rek ndeysaan moom mooy euh, image bi ma gis Taïb Socé ni mu jeexee. jeex bi vraiment sama man vraiment sama âge. metti na ma quoi. vraiment xam ne que mu doon dund lu metti. xam nga nag c'est pas difficile. situation bii nga génn ci mm-hmm. ñëw il faut être fort pour il faut être fort mm-hmm. te ñu koy ñaanal mu fort pour mën a vraiment mm-hmm. mën a mën a mën a voilà mën a parce que non ce sera ce sera très difficile si. très je parle de la personne man ni ma gisee image bi rek gis ko jeex complètement dégg naa sax ñu naan euh, diabète bi moo ko gën a kii non non ce sera difficile euh, pour moom voilà. Euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax ah mu mu dellu sewaat bu baax ci ci ci biir société bi waaye tamit euh, man dafa am beneen jàngat bu ma def mooy. Euh, sama jàngat la man personnellement mooy dafa mel ni moom ci problème bi dañoo uñi suturaam complètement man image bi j'aurais préféré sax ñu bàyyi ko ba mu dem këram ba dallu ñu soog koo photo di ko partagé mais koo xamante ne yow mi ngi soo génn génn gul sax fi nga xamante ni fa lañ ko mhm. dencoon ngay ngay nga koy photo di ko dugal ci réseaux sociaux yi loolu tamit je pense que c'est c'est mhm. c'est à surtout ci melokaan boobu mu meloon mën na ko atteindre moralement mhm. koy ah, ñaanal en tout cas Euh, c'est médiatisé. waaw c'est médiatisé xam nga loolu moom mooy revers de la médaille. c'est vrai année bi nag foofu loolu mooy loolu xam nga man man man man quelque part damay d'accord ci ñi nga xam ne dañoo ñaawlu affaire bi ni mu amee. dégg nga waaw parce que. ñu loolu mooy non loolu mooy revers de la médaille bi mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. tamit euh, quand tu acceptes dama ne. effectivement euh, mu ngi may door de. kan ah bon wax noonu. am na solo après maa ngi yow nga expliqué ma. Oh, waaw ah, voilà ñu daal di daanalee ak Leral TV Leral TV nag euh, di xam ne ni ñi nga xamante ne ñoo di liggéey liggéeykat yu jooni jooni jamono ji nag euh, dañuy réclamer près de 20 millions de francs CFA su société Bougane Gueye Dany bi de mu mel ni ñi nga xamante ne dañ doon liggéeyee foofu ñoom dañoo dem ba ci biir gisatuñu bopp seen bopp ci ci ci jooni jooni bi li parce que dañ doon liggéey ñu leen di yoreel ay mois de salaire mais. Euh, chaque jour dañ leen doon wax que dinañ leen ko regrouper defal leen ko benn somme bi nga xamante ne dinañ dinañ leen ko jox mhm. waaye nag ba léegi ni si rek mu mel ni gisaguñu dara ñii yoree nañ leen 2 millions de francs CFA ñeneen ñi ci 600 000 ba jàpp 200 euh, 000 francs CFA mu mel ni nag xam ne nañu ni bu ci bu gaan gee dani mi jugul rek bu yàggu dara yi it dinañu defaat beneen manifestation ngir ñaawlu doxalin boobu lay ay liggéeykat lañ kañ dañ doon liggéey nañ leen fay liñ leen amee rek. mu waaw loolu la quoi mais euh, euh, euh, ñaata la yëpp loolu yëpp ñaata la. 20 millions 20 millions lii yëpp tool yëpp 20 millions. 20 millions ah, non mais non non non man je pas non non man non non je ne pense pas que 20 millions. ak Bougane Bougane di am problème mu 20 millions. non non. Eh, peut-être yaa am na am na leneen. non non non doy na waa parce que man je pense que. bu dee kii na Bougane mën na fay lii. si mën na ko fay mais est-ce que bëgg na ko fay. Mm-hmm. waaye am na lu am si suuf. parce que déjà travailleur waroo koo yore. plus d'un mois de salaire. nga yoreel ko ba muy cumulé mois yooyu noonu. et puis c'est pas une personne doo dégg li ma la wax. man d'accord naa li nga wax. d'accord naa ak ñii di ñaxtu. Mm-hmm. d'accord naa ci mais dama ne. man affaire bi dama xaw a. peut-être am na leneen lu xew waaw am na parce que ñoom nee nañu def nañ recours. Mhm. jéem nañ koo gis moom nee na leen dina dina leen recevoir mhm. xam na problème bi fu mu toll. Mhm. mais ba tey recevoir bu leen. et puis ça fait des mois kon ñu def wait and see. waaw mais waaw mais Bougane nag euh, euh, ma Bougane recevoir al nii nag xoolal lii ba maa ngi réglé ko quoi. mu jeex quoi Bougane réglé nii. merci beaucoup voilà loolu la quoi réglé ko quoi. Fatou maa ngi leen ah. di remercier comme d'habitude di remercier sama ah. waa team Mariem Yacine Aïda euh, démb vraiment dañoo génnoon dem fële nga xamante ne moo di Plaza pour ñoom it ñu teral ñu. Mm-hmm. vraiment bañ euh, bi nga xamante ne ñu ngi koy def. d'accord ñu ngi euh, leen waa Plaza pour. ñu ngi leen di bu baax a baax a baax. dinañ fa ñëw dinañ fa ñëw am loo xamante ni mm-hmm. indi woon nga ko léegi ci biir people yi ñu ngi jot information léegi nii muy xale bu góor bi nga xamante ni frère am daf koy menacé muy mbirum borom homme de tenue bi voilà ñu ngi jot information léegi nii que waa prévoit reportage di police des polices ñoom daal dinañ jël cas bi ba convoqué nañ xale bu góor bi ak yaayam ah, ngir ñu dem foofu noonu ñu di ñu euh, ah xool cas lan la exactement ngir rek ah voilà ñu ngi lay remercier bu baax yow Salma Ibrahima lii mooy fast track fast track dëgg la waaw lii mooy fast track mhm. kon je travaille maa ngi liggéey maa ngi liggéey bu baax fast track c'est petit déj qui la bu baax a baax macha allah et c'est par le team par un élément du team de Cheikh Tidiane Ndoye la Diouf waay prochaine moom Salma Ibrahima Fall ci yeneen léegi léegi nag ñu daal di ñëw jàll ci biir rubrique musique <laughs>